salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV leen bëggee bu baax a baax di am contentement ak bégte di jënd yéen chaque jour comme ni ma ko waxee mbër ak champion nee leen plateau bi ku daanul doo fi toog comme ni ko mbéy ki waxee ku daan nag dañu toog ak moom mais bu ñu toogee nga xam te ne mooy Kaaw Gourdin war na leen mën a jaaxal tuuti mais ci kanam tuuti bi ñu duggee ba daal di xuus du doon jaaxal dama koy nuyu moom Kaaw Gourdin rek bàyyi ko mu nuyu internet yi daal di xuus Kaaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sunu ñaari waajur di sant sunu seriñ sëñ Abib si Maodo di si da baax di sant waa Dalifor bu baax rawatina képp kuy bëggee Kaw Gourdin rek Kaw Gourdin moom lay nuyu di bëggee waa Leewtoo TV. ñu ngi lay delloo bëggee bi bu baax a baax ci noonu nag avant ñu duggu ci tournoi beeg combat bu mujj beeg yëpp ku bëggoon xam Kaw Gourdin kan mooy Kaw Gourdin. waaw Kaw Gourdin benn xale la bi nga xamante ne juddoo Dalifor yaroo Dalifor màggee fa defee fa lépp ah lépp lu ma am rek Dalifor laa ko amee wax dëgg yàlla. nga ñëw dugg ci làmb jaxase làmb ñu naan Kaw Kaw Kaw lan moo la motivé ba nga dugg ci làmb. waaw nekk ak samay grand rawatina sama per muy père Tombe nekk ak ki nga xamante ne mooy jal Diop ak seeni kay Junior Baaw Baab ñoom ji fay ñoo ñoo ma ci làmb rawatina sama turandooru Gourdin. Gourdin waaw. lan moo tax nga jël sa bopp tuddee ko Gourdin Kaaw Gourdin lu waral Kaaw Gourdin. kooku sama jarbaat la te dañ doon seetaan benn théâtre quoi théâtre Saneex. Mm-hmm. Mm-hmm. Saneex askanu lawbe. ba ponkal bi ñëw di ko defar lu gourdin quoi. Mm. waaw fa gourdin bi jóge rek waaw ñu tudd gourdin. nga dugg ci làmb ku dugg ci làmb ku ne xam ne làmb am na ay am na ay bas neex tey suba mu naqari ba nga duggee ci ah. làmb ak léegi moo la gën a neex ci làmb. làmb instant dundaguñ ci lu neex de. amaguñ ci dara mais niveau bi xanaa sa kër am na lu ci neex tamit. ci niveau bi nga toll nii. amuñu ci dara lu neex lu métti rek lañ ciy dund saa su nekk. Mm. waaw wax dëgg yàlla dundaguñ ci lu neex feeg yegguñu fu tanoore tollu quoi. fu tanoore toll waaye laataa loolu ku nekk ci làmb di nga am lu la am lu la ci naqari fu mu ne nii est-ce que toll nga moment boo xam ne si nga toog di regretter li nga tax nga dugg ci làmb. waaw des fois da dal wax dëgg yàlla parce que ñun lépp lu ñu dugal ci sport bi nii teral suñuy waajur ak euh, suñuy àndi jàmm ak suñuy soppee donc moo tax ñu dugg ci làmb mais des fois day métti métti waaye bi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla bàyyi rek ngay bëgg. Mhm. mu nekk ci entraînement yi ak ñi nga xamante ne war nañ la jàppale te wuñ la. waaw day métti trop wax dëgg yàlla mais sant yàlla quoi. Mmh. ñu gis kaaw day bëree lutte avec frappe mais ñu gis ko ci lutte simple yi macha allah bu duggee rek. mu jël ay ay ay ay ay tournois yu bëree bëri lan moo tax nga bëgg lutte simple bi da nga koo gën a mëne wala lutte simple moo gën a yomb. non simple bi gars dañ ma ci doo ràññee nii rek ne man yàgg naa ci de wax dëgg yàlla jël naa ci tam lu ne waaw champion yu bëri <laughs> daje naa ak ñoom wax dëgg yàlla. waaw mais lu ñu war la te sunu papa di père Tombé Sène moo ñu jox ndigal pour ñu bëre ci mbapat bi mhm. moo tax ñu wàcc rek dem bëre yi mbapat quoi. Mhm. nga xam mbapat xam lu simple ñoom ñaar ban moo ci gën a métti. non arène moo gën a métti. Mhm. waaw moo gën a métti moom parce que da ngay yóbbu supporter yóbbu ña nga xamante ne ñii mun nañu ànd ak yow ñii mun nañ bañ ànd ak yow mais mbapat moom boo koy dem doo ànd ak kenn. pour lu ñuy kuréel lu simple bi rek ñi dañuy daan mbër yi bu ñu ñëw ñu naan ay tey ñaañ ji bu ñu tasee ñaañ ji bu ñu tasee est-ce que yow mos na la dal ngay dem bëri di xalaat tase ak benn mbër foofu mbër bu lay sonal. non loolu moom mosuma ko xalaat ci lutte simple wax dëgg yàlla parce que yàgg naa ci yàgg naa ci bëre yàgg naa ci dajeeg ña nga xamante ne ay champion lañ mhm. waaw. dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy lutte avec frappe. nga dugg ci tournoi tournoi bu am solo macha allah. di mhm. gis ci caatu Daouda Fall. Mhm. Yanka Junior Albayra Kayre gis ci Kaaw Gourné. quatre xale yoo xamante ni ay yaakaaru làmb rek ma ngi ciy dugg. Mhm. lan moo taxoon nga dem nga dem dugg ci tournoi boobu nga jógee ci defet. <laughs> waaw parce que dama jógee ci defet moo tax. mais ñu ñooñu ñu nga liminoon ñëpp wax dëgg yàlla bu nekkul albarka kayre waruma cee bëre kenn. parce que albarka kayre moo ma jiitu ci làmb bu nekkee ñeneen ñi moom maa leen jiitu ci làmb sama palmarès ak seen palmarès bokkul mais comme damaa jóge ci ay defet jóge ci ñaari defet wala ñett wax dëgg yàlla. ñu proposé ma ko man leen jël leen amuñu leen lu ñuy xaar yaa noonu rek la deme nga dugg ci tournoi bi. Mhm. premier combat nga am ci ndam macha allah ndax nga dundee loolu di xalaat geneen ñett yu ñëw ndax olof ñaar dafa ne boo tëbee dal ci xal. Ah. des na la beneen tëb boo war a tëb. Ah, non lu dul delluwaat santaat yàlla bu baax parce que moom moo ñu may ndama ah, wax dëgg yàlla albarka Kayre champion la ba nga xamante ne wax dëgg yàlla dañoo waroon bëree lu bokkut ak galaa bi. Mhm. combat boobu yàqu ñu bëre yàlla may ma ndam ci kawam après boobu laa ko fàtte lendemain ba dama xëy dem entraînement parce xam naa lu may xaar leneen xaar la ngay bëre sa combat nga bëre ba daan mm-hmm. dellusiwaat leen sa adversaire daan nga ñibbee defet lan la la def jour boobu noonu te yow xam nga ne yow yow yaa daan ci sa xam-xamu waaw mu métti torop wax dëgg yàlla mu métti torop mais nit moom nit bu nekk nit la te doomu aadama day jum te jour boobu noonu arbitre bi daa juum muy Malick Ngom ñu ngi koy nuyu en passage dëgg yàlla daa juum rek. Uh-huh. ci juum boobu nag CNG daal di koy gàngaante ñu fol ci wéewu béy ne CNG daal dina la delloo ndam li kon maanaam da ngay am 6 points loolu dëgg la wala. waaw loolu dafa leer dëgg yàlla dañoo def recours. Uh-huh. waaw sunuy staff wax dëgg yàlla bu nekkoon man kese moom du ma def du ma def parce que jàpp naa ni daan naa ko après jeex na jeex na mais comme dañoo am staff encore am ay encadrement. ñoom ñoo ko topp moom wax dëgg yàlla ba yàlla def lu muy def. am nga tubaab preuve la bëgg daa mel ni CNG nga jógee est-ce que doo ñu woon fi ñu xool. loolu dafa leer loolu moom. ñun moom ah tubaab moom preuve la bëgg. preuve à l'âme dañ ciy sawar <laughs> ay bind lay <laughs> dañ ciy sawar trop wax dëgg yàlla kayit yaa ngi nii bismillah. waaw muy ah, internet yi mu ngi noonu kon mën nañ ne Kaw Gourdin am na 6 points ci classe bi làmb ji mujj bi moom moo jël ndam li. leer na ah yi leer na moom leer na moom fans Kaw Gourdin mun ngeen savourer victoire boobu xam ne ah moo jël ndam li non loolu dafa di ko ci ñaanal jàmm ñaanal ñaan ko ndam li jik ko amiin waaye ba léegi tëb bi jeexagul de daam ku des xale bi jommal ñëpp caatu daaw daf faa <laughs> fu mu nii daa mel ni ñor na de it ñaar la non loolu lu munul ñàkk la te lu munul ñàkk moom faaw moom wax dëgg yàlla est gis nga xale bi gis nga caat bu baax caat caat waaw xam nga tuuti na ndaw na saf na xale bi man xamu xamu xale bi la xamu mu fa demee noonu. gis nga wax naa la ko léegi nee naa la ñooñu bu nekk woon tournoi bi du ma ak ñoom te loolu rek laa gëm wax dëgg yàlla ba léegi nii dama jàpp ni maa ngi ci gala bi 3 points laay uti. man lu gars yi dafa am final amoo 6 points nga moom 6 points instant bi ku nekk 3 points ngay xëccoo pour am 9 points génn jël pay. li nga bëgg rek la bëgg. maanaam maanaam foofu laay waxee quoi man ba léegi pour man maa ngi doog commencé wax dëgg yàlla. mu nekk xale mais comme dafa am lu ma wax ne ma def maa silence damay xaar silence boobu rek. léegi la moo tax ngay xaar silence boobu. waaw parce que moom moo ma silence waaw. seen combat yi ñaar dafa mel nii xaw ma xale bi daf la xaw ma cooy lañ koy xaw ma xale bi da lay xëcc suñu demee noonu <laughs> day wane grand nga moo lay pousse dafa waroon demee noonu lan la. tollagul ci ci niveau boobu noonu rek mais ci tollee dina xam ne doomu Dalifort bi. daa foofu jógee de. <laughs> nee moom nee moom Black Panther la maanaam panthère noir amul kenn ku koy jaaxal. non panthère noir boo ko booleeg le taureau le taureau di Dalifort loolu leneen la. walla bëgg a xam di <laughs> dàq bi dàq bi c'est quoi loolu si toog lan la lan la waral loolu. waaw slogan bu génn ci deux mille vingt et bi la rek. Mm. waaw ñu ñam ñu dem ci mbapat bi essayé ko mu neex. Mm. waa ah, ñu ne nañ ko yóbbu ci galaa bi. ba ñu ba ñu galaa bi dàq dàq nga ñaar. waaw dàq nga kenn kenn ci des mu ne nii. bon incha allah gureen bi dina ko daal ñu daaxu ko. waaw mhm. ah, incha allah rabbi. fu mu ne nii lan ngay wax yi daal jege moom mu dëgg tournoi boobu. waaw idaal yi waaw di ko ñaanal yàlla rek parce que xale la mu tëgg ay xale kon tamit wax dëgg yàlla mag ñi dañ ko war a jàppale parce que wax dëgg yàlla ay nitu làmb rek la la tëgg te macha dañ koy ñaanal yàlla. yàlla dolli ko jàmm ba baax ba final bi comme ni ko gars yi di waxee ñu mun ko réussir loolu quoi. kay waram boobu nag loo koy wax muy Thiatou Daouda Fall moom moom fu mu ne nii di jàkkaarloo. Hmm. lan nga wax Thiatou Daouda Fall. <laughs> di ko ñaanal jàmm wax dëgg yàlla di ko ñaanal jàmm bu baax di ko xamal na waaj rek. Hmm. waaw am na combat. sax mais na waaj rek. li nga supporter yi. <laughs> waaw supporters yi waaw santaat yàlla bu baax rek yaa nga xamante ne moom wax dëgg yàlla kenn mënu leen fay ñooñu moom dañ leen di sant rek ci côté bépp wax dëgg yàlla parce que man xale laa xale bi nga xamante ne carrément fi ma juddoo bëgg nañ ma trop wax dëgg yàlla bëgg nañ ma trop te teg nañ ma fa nga xamante ne wax dëgg yàlla pour ñoom Balla Gaye mooy génni wala Modou kon tam dañ leen di sant di leen ñaanal yàlla rek lépp lu ñuy séntu ci carrière bi ñu bokk kook ñoom dund kook ñoom di sant ña nga xamante ne tamit kenn du leen fàtte quoi muy waa ecole de lutte Dalifort bàyyi wuñ kenn nuyu nañ ñëpp waa Père Tombe ñoom Oli Gënze ñoom Jal Diop Kayre Junior ah sama booy ñoom Valdo ñoom Antu Njaay yi xam nga ak booy yoo xamante ne xam nga rek mooy loolu ci mm. ay tout tànk lañ mm. waaw ñu ngi ci suuf waaw di sant tam waa Gambie ñu ngi leen sant bu baax waa am dalay ngi leen di sant waa Kaarang ah ak waa Pass yi ñoo ngi leen di sant waa Kaolack waa Fatick ñoo leen di sant bu baax waa Njaanjaay waa Nguy waa Boof Fatick ñoo ngi leen di sant bu baax jàpp nañ ci kombaay bu baax a baax xam nga ak ñi nga xamante ne ñooy waa Touba waa Nguma Ngeewul waa Louga waa Màkk tamit ñoo ngi leen di sant bu baax. woo nga àdduna bi yëpp. waaw woo nga àdduna bi yëpp. doomu àdduna bi daal moo taxit. <laughs> noonu la demee di nag ñi nga xamante ne waaw ñooy waa axlu làmb ñooñu duñ leen fàtte ku ci mel ni Dieng bu sëñ Babacar ak Diop la maire ñoom Cheikh Sarr ñëpp ñoo leen di bëggee waa gëstu xam-xamu tamit ah amuñ seen fay ñoo leen di bëggee bu baax ku ci mel ni ah BMW di sama grand wax dëgg yàlla ak Père Mbaye Tine amuñu fayam ak ñu nekk ci kër gi ñëpp ah leen di siyaar di siyaar tamit xam yow mi xam nga soxna yow. trop bu bu ci wax bu ci teg dara yow ziar ba rek bu ci teg dara soxna Ndeye Mbacke mu sell. waaw waaw bu ci teg dara suturaal ma rek suturaal ma rek bu ci teg dara. waa di ziar ñëpp nag bàyyiwuñ kenn wax dëgg yàlla parcelle ah maa ngi leen di déggee sama grand jaak maa ngi koy déggee bu baax a baax a baax. di ziar awaña suñu député ak suñu meer Baye Diop ñu ngi koy déggee bu baax a baax. waaw bëgg nga ñëpp. non diaspora bëgg nga ñëpp kaaw bëgg nga ñëpp. diaspora ñoom ñoom moom émission yi. kon ñu leen di bëggee. waaw ñoo ko moom dama di bëggee bu baax ñëpp ñëpp ay toogu Leewtoo TV ah. <laughs> international li di booy ñaanal cappaaccio international waa Leewtoo international. laay góor loolu waa France ah duñu leen fàtte waa Belgique. Hmm. waa Espagne waa Allemagne sama gars yi fa nekk waa Mauritanie maa ngi leen di bëggee waa Arabie Saoudi waa Turquie ah. ak fan Mauritanie. bàyyi ma gërëm tamit bàyyi ma gërëm ci des. waa Gambie maa ngi leen di. ma ma gërëm sama gars yi ma àndal ah. <laughs> hmm. seen fay. Hmm. waa waa ñi nga xamante ne ñooy saala saala yi <laughs> ak waa rëbba waa mbartaan yi tamit ñoo ngi leen di déggee muy noonu dama koy <laughs> dama koy bëggee bu baax a baax moom Kaw Gourdin nee naa man maay original pël bi maa ngi koy bëggee bu baax di ko kontaanee noonu laa def daal di gërëm sama équipe bi ah. Bilal Ndiaye damay kontaan ci moom baax waax waa dama waa Europe damay bëgg ci ñoom Omzo Ndiaye sama Modou Modou yooyu damay bëgg ci ñoom bu baax a baax Baba Kan Kan Diallo jiri borom Espagne damay kontaan ci yow waaye je sens mag kenn du yow ci même réew bëgg naa la bu baax a baax noonu lay def joteen di daje beneen yoona ah ci beneen invité mbër champion incha allah <laughs> jaajëf